Je mbokk yi daleen ak jàmm ci seen seen diine maa ngi di ñaan abonné te vidéo bi mhm. mim xaadam del mim del mim gi 40 xaadam mhm. dell gi 8 beneen mim gi 40 beneen del gi 4 muy 4484 mhm. muy dasmas dasmas nga xamante lu garaaw a garaaw la ci wàllu xaalis bismillahi rahim fi ne jaam bi bu xëyee saa su nekk mu di def 787

soo ko waxee am nga 12592. ci ci ci ci ci ci ci ci bismillahi rahmaani rahim. mooy ban. axu jatala fasikoha xamu zanasu xabdata la. fi ne boo duggee ci ay armer sax wax ko fa ñu djéggal ñu doon bëggal ñu nit ñu djéggal leen. loola nak moy xam-xam. bismillahir rahmanir rahim.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 boole ko ak allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim téeméer téeméer incha allahu rabbi dootul ñàkk dépense bisimillahi rahmaani rahim ñetti téeméer yoon waaw ñetti téeméer yoon bu jant bi jóg bu jant bi jóg boole ko ak téeméer allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waaw moom dépense dootu la jege dootu la jafe déedéet dootu la jafe bu ma gars yi woo di ma ko laaj de mhm. euh, numéro Moustapha mu ngi noonu ci suuf écran bi ngeen mën a jàkkaarloo ak moom jël ko numéro fii numéro fii ci Sénégal mais surtout ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo nekk France te bëgg ko jot képp koo xamante ni nag da nga nekk ci pays anglophone yi euh, wala beneen pays boo xamante ni du France dangay def indicatif bi ba noppi 0033 bi nga dindi 0 bi taqaloog 6 bi rek daal di continuer 600 nangam donc euh, mi ngi noonu ñu indi leen ko tey jii mu fas yéene waxtaan ak ñu yéen ci lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay secret li ñu mën a mën a wax ci Ya, euh, bismillahirrahmanirrahim. bari na bari na buñ su ko fa toppoon. manam fi ba suba ci waxtu wi duñ fi jóge. ci ay njëriñam wala ci ay njëriñam bismillahirrahmanirrahim ngeen di ci def ay jël ay buntu yo xamantene da ngeen ci defal. ay doom adama ñaan jambi ki nga xamantene ni tay ji ma nga jëm ci kumu ragal. kumu ragal wa wala ñu convoqué ko. na def bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim juroom fukki yoon. 50 fois bu yeggee koko day mel ni mu xar. Hmm? waaw bu yeggee koko day melni ni am xar fi ne fi ne dinaa ko may sama mbokk sëriñ si. waaw sëriñ si ak ñëpp kay. waaw 12000 bas bismillahi rahmaani rahim nga bind ko 12000 fois. Mhm. wut si woo. Mhm. xooj ko ci. Mhm. gas ba mu xóot suul ko fukki fan ak ñaar. sulli ko. boo ko sullee nga sangoo ko. ngay ngay sangu maanaam bis bu ne nga sangu ci. ba mu mat fukki fan ñaar heure boo sangoo ba pare nga toog wér di bismillahi rahmaani rahim ba mu mat 12000. Adja Mbaye amul aajo ju mu mënta faj. yaa ngi yaa ngi defaral sa mbokki sëriñ si de. samay xarit lañ dama bëgg àdduna si ñëpp am jàmm man sëriñ si nga xamante ne ñu ngi ci yoon tege ci yoon. Mm-hmm. ñoo ñee samay xarit lañ. waaye képp koo xamante ne dugg nga ci te bokkoo ci bokkuma ak yow lenn. donc douze mille bisimilah. douze mille bisimilah rahmaani rahim. nga bind ko def ko siwo bu ndaw gas ko suul. gas ko suul ba mu da nga koy bind jàmb ko. jàmb ko gas ba mu xóot nga suul ko fukki fan ak ñaar. Mhm. soo ko sullee nga sangoo ko fukki fan ak ñaar. bis bu ne mhm. boo sangoo nga werd fukki junni ak ñaar ci bisimilah rahmaani rahim amul aajo ju mu mënta faj ku tëju ba mu mënta am dara bu ko sangoo day deñ ku ñu liggéey bu ko sangoo day deñ aajo ju mu mën a doon day faju moom ci bisimilah rahmaani rahim mu doon lu am solo loo xamante ni euh, affaire à suivre la euh, ni ma leen ko waxee rek euh, Seydina Mouhamed Moustapha Samb moom la ñu dalal tey ci seen émission di waxtaan ak moom. mu nekk koo xamante ne nag defi rek la bëgg ndax li ko waral mooy dañu wax ne ñaan yàqu na ba kenn gëmatul kenn waaye nag règle boo gis am na exception te foo dem di nga fa fekk ñu baax fekk fa ñu safaanoo même animation bii ñuy def sax amaana mbayeng daf koy def te moomu ko kaka moom mi ngi toog donc lu ci nekk rek nañ ko jaarale yoon du ñàkk nag ñu dajeek koo xamante ni ñaankat la ku mel ni moom ñu indil ko mbokk téléspectateurs yi ndax li ñuy yitteel du dara lu dul ajo yi nga xamante ni doomu aadama yi ñu ngi koy jànkoonteel mu faju loolu moo tax ñu indil leen ko bisimilah rahmaan rahim ak istifaar maanaam maanaam astafurlah astafurlah daa dafa garaaw na mooy benn benn médicament boo xam ni uh-huh. suñu borom moo bindu notice bi wax la muy jariñ moom astafurlah fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu sama aleykum wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al mm-hmm. yonent bi am na ku ñëw ci moom ni ko man de dama dama dama amul doom mu ni ko xaleeka kii ko damaa bëgg xaalis mu ni ko xaleeka bi istighfar damaa bari ay bakkaar ay ay bakkar mu ni ko xaleeka bi istighfar saxaaba bi laaj ko ni ko waaw ay ya rasulillahi lu tax yow ñu ñëw ñëpp ku la laaj rek nga tegtal ko istighfar mu ni ko mooy benn médicament bi nga xamante ni mm-hmm. universel la lépp lay faj bawul dara xam nga astaxfirullah ndax yow. foofu ba fooro fooro ma ci de. waaw dama ko bëgg jàngal jaam ñi. ñun de jéggalu rek lañ ci dañ ko bëgg a jàngal jaam ñi. jaam ñi waaw. mais kon Moustapha yow tey facilité rek nga indi. facilité waaw yombalal nit ñi kenn ku ci nekk jëriñu waaw kenn ku ci ndax xam xam nga fi ne géej boo ñëwee tànk ci kaasum ndox du tere géej jàng ko. Mhm. dama bëgg dimbali jaam ñi. mais est-ce que du li nga nammul dara tax fi mu nekk ni lu la neex mayee ko fi mu. sax du ma lu ma nammul dara waaye xam boo ko joxul nit ñi jox ko suuf si te muy dëgg jaam ñi nga koy jox boo leen ko joxu rek jox ko suuf si kon jox leen mbootu astaghfirullah mhm. mooy ñaar boo waxee rek ñu ni 1947 1947 mooy àddadu nafsi bi mooy lim bi mhm. mais lan moo tax mu nekk 1947 mhm. boo jëlee allahu 66 la ahadu 13 kaafi 111 razaax 308 fatah 489 xanni yu 960 boo boolee moy nek 1947 juróom-benni tur yooyu composé astaghfirullah mhm. Calculez. Allah 66 la ahadu 13 la 111 Fatah 489 razaax 308 hanni 960 mhm. boo ko boolee mu nek 900 1947 bala may yegg astaghfirullah alif gi mooy anwaar mhm. képp kuy def astaghfirullah day amul leer sin gi moy Saptar. képp ku koy def sunu borom dina la suturaal suturaal taa gi mooy taw bëtu mhm. taatombe gi mhm. mooy taw bëtu mooy tuub mhm. xayin gi mooy xufraan jéggal kii tuub ñu jéggal ko ra faa gi mooy mooy mooy mooy fatxu da lay indil fatxu da ngay ubbeeku raa gi mooy raxma mooy astaxfirullah léegi boo xoolee juróom-benni tur yooyu allahu ahadu fataahu razaahu xanniyu kaafi daa am noo koy liggéeyee loo xamante ni boo ko dee def bala muy mat ñeent fukki guddi nga am xaalis. bala moo mat ñeent fukki guddi nga am xaalis. soo paree jox ko jox ko sama réalisatrice bi xaalis rek la bëgg xaar ñu dimbali ki ci ligne bi rapidement. Euh,